j'ai été arrêté tout à l'heure gis ngeen ba ñu dugal ma si oto bi. Mhm. parce que jaay doole la. après par la suite ñu bàyyi ma. Mhm. lu jàngat rek lu ñu ci mën a jàngat mooy da ngeen léegi léegi ministre de l'intérieur boobu lu mu wax. Mhm. dama jàpp ne naanagul ay garabam. parce que bu naanoon ay garabam moom du taxaw wax lu mu wax parce que ministre de l'intérieur organiser les élections lañ la wax. soo yoon nekkul ci ku pare ku parewul pour pour nga xam ku pare ku parewul. waa DG bu ñu déposé liste yi ba pare di xam ku pare ku parewul donc ministre de l'Intérieur bu taxawee ne opposition parewuñu ça veut dire que déjà ministre de l'Intérieur wane na fu mu par li ñu koy waxal moom Jean Baptiste Tine na toppatoo wàllu intérieur mu xam ne ab gendarme la mu xam ne c'est un agent assermenté Ousmane Sonko sale boulot bu mu ko bëgg a def la ak Diomaye na ko bu mu ko sax jéem a def parce que nous allons rester vigilants nous serons vigilants d'abord pour mooy xokk dal bu ñu commencé xokk dal tey Lat Diop la démb Bah Diakhaté gis nañu notre frère amee Suzanne ça ne passera pas parce que lan fii ay góor ñoo fi nekk fii ay góor ñoo fi nekk fii ay garmi ñoo fi nekk fii ragal nekk fi une fois de plus parce que nag tey gis ngeen dispositif sécurité bu ñu fi teg amul kenn ku mën a taxawaalu euh, côté DIC pour soutenir Lat fu ñu ko teg pourtant ñun lañ doon wax ay dictateur lañ te pourtant ñun on a laissé la latitude on a laissé ñu wax seen soxla ñu wax seen xalaat ñu wax lu neex mais tey lan jàpp nañ ne ne dañoo tële jàpp nañ ne mënuñu jàpp nañ ne xamuñ fu ñu jëmee réew mi pour rek ñu ñu mën a gagné législative dañ ko dañ ko dañ ko bëgg a sàcc def ko ci ay njublan def ko ci ay tappale jël ay nit nëbb leen jant bi loolu mooy dëgg le reste nag mooy je m'adresse directement à Bassirou Diomaye Faye le suppléant xaw ma suppléant la xaw président de la république mu xam ne dëkk bi moom lañ ko dénk moom lañu Ousmane Sonko maintenant que Ousmane Sonko veut veut nag fii ay góor ñoo fi garmi ñoo fi nekk Aujourd'hui, nous, au niveau de la nouvelle responsabilité du président Amourba, le président Amourba nous a demandé de venir soutenir le, camarade Ladjob. Donc, président Amourba, il est en Ladjob, il est en Ladjob, il est en Quelle opposition nous avons Donc, il faut que nous sachions. ne va pas arrêter, on va parler. Si nous tac, nous tac. Si nous japp, nous japp. Comprendre Nous wax. Nous sommes dans un pays libre, nous sommes dans arrêter. Si nous arrêtons, nous devons prendre les policiers. c' est évident parce que tamit dafa yoroon gi. lu tax ñuy xaar ba élection jub ñuy woo Lat Diop. est ce que dossier moo non dama ne non dama ne dossier mënut gaawee noonu parce que IGE mi yor wàllu enquête yi IGE mi yor wàllu audit yi mhm. mënuñoo def enquête. nee seen enquête balaa moo pare en deux mille vingt cinq la war a pare il faut le dire. mais dama ne non pôle parquet final dañ koy transférer dossier. te dossier mënuñ ko transférer pôle parquet final tant audit jeexul te balaa audit jeex. waa waa dañoo war a woo d' abord Lat Dior am ay questions yu ñu ko war a posé pour man damaa jàpp ne pôle parquet financier boobu ay mbirum caaxaan la pôle parquet financier boobu ay mbirum jaay doole la loolu mooy dëgg c'est du banditisme la des nag mooy nañu bàyyi Lat mu ñibbi këram nañu bàyyi Ahmed Suzanne Camara parce que Ahmed Suzanne Camara lu waxoon mooy dëgg parce que newoon na président de la république du wax dëgg premier ministre du wax dëgg la preuve mu il a dissous l'Assemblée le 12 donc am euh, na Suzanne Camara am na dëgg ci ci kaw le président de la République ak ci kaw le premier ministre donc damaa jàpp ne tey justice dañoo war a libérer notre camarade Ahmed Suzanne Camara amul benn ñaareel da nga xam ñaareel dossier wax ma benn dossier bi Jérôme mooy kan Jérôme Jérôme c'est un il a travaillé pour nous tous man Jérôme c'est mon ami et j'assume Sniper c'est notre camarade C'est garde-corps. Il a été dans tous les combats avec nous. Et nous avons le libéré. Nous sommes du bandit. C'est un honnête citoyen, c'est un Sénégalais. ay bandits lañu won ñom ay délinquants lañu won sniper à protéger la république sniper à protéger tay liñ ko moy lan ñun ñun ñu nekkoon ak ak mom sniper daful daful dara il faut que ñu arrêter lool ñu situation bi du len lu dul euh, gis ni dëkk bi moment bi gars yi dañoo nekk ci acharnement bi nga xamante ne dañoo jël ay nit ciblé leen juste pour faagaagal leen politiquement Euh, raison pour laquelle nag ñun les boucliers de Lat Diop ñun ñoo ñëw am suñu taxawaay ndax kilifa boo ko amee da nga koy ñàkk rawatina benn ñebe ci ciñ et Lat Diop ñun suñu leader la dañoo am droit taxawu ko féete ko si fi nga xamante ne tey jii ñun fa la ñu féete woon raison pour laquelle nag ñu ñëw fii taxaw pour wan ni tey jii réew mi ak askan wi que ñu fi bëgg def tey jii du lenn lu dul bëgg a faagaagal nit ki ndax Lat Diop gisoo leen benn rapport boo xamante ne épinglé na ko gisuñu lenn loo xamante ne luubal na ko ci bépp direction bu mu mës a jaar wala ministère bu mu newoon maintenant nag nit ki nag mën nga ko woo ndax buur bu la wooyee di ko wuyu dem na wuyu ji ñu ngi toog di xaar nan la ñuy génnee fii di wax ak avocat yi. d'accord gis ni euh, est-ce que pour ñu téye entre guillemets gros poisson pour ñeneen ñi mën am tiitaange ak yooyu. waaw mais loolu loolu loolu suñu suñu premier ministre wax na ko récemment nee nañ tey jii fii ay fan dinañ tal leen dul campagne te loolu ça veut tout dire. lenn moo leen tax a jug mooy maanaam ci élection législative yi ñu jëm faagaagal yenn ñi nga xamante ne am nañ poids politique seen département ak seen i commune et Lat Diop xam nañ ni tey ji maillage bi mu xam au niveau au niveau au niveau national Lat Diop nekkatul Lat Diop bu Guédiawaye tey ji Lat Diop boo ko laalee waa Mbacké jug boo ko laalee waa Fouta jug boo ko laalee waa Matam jug kon xam nañ ni kooku tey ji poids politique bi mu am ak influence mu am tey jii tey jii looloo tax ñu bëgg ko faagaagal. waaye na yenn direction ñu ngi naan euh, daa am une certaine gestion xam nga xam nga tey jii le premier ministre avait dit que tey jii ans yi mu def impôt domaine bu doon am na lenn lu mu fa sàcc te ma nangul ko sàccu fa dara Macky Sall dina ko jàpp waaye la Diop fi mu jaar ba fi mu toll bu doon tey jii am na lenn lu mu def ak ni mu mel ak ñii le 24 mars le 25 la ñuy xëy jàpp ko kon ça dire que ay loxoom set na. lenn nag am na lii politique la ñun xam nañ il veut faire de la politique juste pour liquider le président Lat Diop mais loolu du jàll dinañ xam ne tey ji nag kii dafa am ay mbokk am ay nit am ay am di jàmm buñ ko laalee dinañ xam ni réew mi laal nañ ko. maay Boubacar Diallo mu ñu gënee ma xam ci Boubou Gounass nekk coordonnateur u Lat Diop à Médina Gounass. waaw mën a wax li nga xamante su ma war sa teewaay waaw mooy euh, teewaay bi mooy teewaayu nit ak nit mooy teewaayu mag ak rakk. mooy teewaayu tamit kilifa mooy Lat Diop mooy suñu responsable moo tax ñu teew fi tey quoi mooy ça veut que dañ ko convoqué mhm. kon il fallait que ñun ñu ñëw teew soutenir ko si bépp boor nag loolu moo tax ñu ñëw fi tey quoi. ñu gis ne am na tamit ñaari dossiers yi nga xamante ne si moom lañ koy daal toog ba sukkandikoo si libération jëm ci gestion ak li nga xamante ne si nag moo di Jérôme Jérôme mi nga xam ne moo yoxoon sécurité bu régime bi fi nekkoon di waa APR ndax moom dafa doon bokkoo ci nga xam ne ñoo yoroon kaaraange bu Lat Diop wala société bi nga xam ne yor na ko ñoom dañ doon joxe kaaraange Lat Diop. waaw man li ma si gën a li ma fi fi ma njëkk a waxee mooy bu fekkee gestion wu LONASE la nañu waxante dëgg 1960. ba à nos jour ba ñu créé Lonase ba léegi Lat Diop moom moo fekk Lonase zéro mhm. yóbbu ko fi yoo xam ne nii daal fu sori la mhm. parce que tey lu lu gars yi musul changé Lat Diop ko changé muy logo bi mhm. ak leneen ak leneen pour fekkee si wàllum gestion wu Lonase Lat moom mun naa lay wax ni zéro faute parce que man xam naa man mii di wax ak yow liggéey musuma liggéey Lonase kon tey euh, kon en tant que coordonnateur te nga xam ne jege naa Lat Diop xam naa ne li mu def Lonase wax dëgg yàlla mu waxuma benn directeur bu fa jaar def na ko de mais moom li mu def LONASE kenn kenn defu ko fa kon si nekkee si wàllum finance ak si wàllum xaalis loolu bu ñun bu ñu tëddee nelaw parce que mun naa la wax ni wàllum LONASE moom zéro faute waaw si wàllum zéro bi ngeen wax nag man foofu maîtriser wu ma ko à 100 pour cent kon loolu man dossier boobu mënu ma see wax parce que dossier boobu wax dëgg yàlla bu fekkee da ko see dugal ah man de maa a dégg waaw mais en tout cas loolu moom man mënu man mënu mënu mënu see wax quoi. loolu la. bu fekkente ni si nii doon wax ni am na am ngeen gestion bu sobre ak tam bu vertueux hmm. pourquoi ñu ci bari jàpp ni mbiri acharnement la wala politique politicienne moo ci laxas moo tax ñu convoqué seen ay nit. waaw mais loolu Sénégalais yëpp xam nañ ko parce que tey koo xam ne yow ba ngay dalay liggéey ba léegi jóge si Lonase jóge Lonase ñëw euh, ministre des sports rapport musu la épinglé ñoo wax ne la Diop moo fi am dossier bii moo détourné lii ñu koy woo mais kooku yow acharnement la. acharnement bi ça veut dire que yow boo bëggee dégg dëgg leer na kese la mooy élection locale élection législative yi ñuy jëm si mais loolu kese la pour dem ay laafam kese la mais nañu waxante dëgg mais bien sûr mais Lat job c'est euh, Lat Diop c'est national Lat Diop du Guédiawaye kese la Diop tey moom moo fi nekk benn représentant APR boo xam ne nii mun naa lay wax ni il est national Touba am na fa représentant euh, Guédiawaye na mun naa lay wax ni Guédiawaye moom seul moo nekk APR boo xam ne nii moom moo nekk géej Guédiawaye am cinq cor maanaam cinq localités yëpp moom moo fa am ay coordonnateurs cinq lo cinq localités waay yëpp moom moo fa am ay représentant yoo xam ne bu la waxee jug ñu jóg def leen ñu def Touba. Euh, waaw mais mairie bi loolu mun naa la bu ñu taxawee di ko wax day yàgg parce que tey euh, lat bu fekkoon ni xolam bu fekkoon xolam wala bu fekkoon lu mu defal waa Guédiawaye waa waay fay nañ ko wallaay lazim du ñàkk du ñu ñàkk mairie bi. mais da sekk dafa fekk loo xam ne nii comme que am na ay nit yoo xam ne dañoo jugoon yor seen micro yor di wax di sos naan ay euh, Aliou Sall moo sàcc suñu quatre cent mille Lat Diop nii wala léeg mais genre wax jooju lay Sénégal yi di gëm ba yaakaar ni carrément ni euh, sanction boobu la ñu gars yi toppee mais nekkul question boo xam ne nii dañoo xam ne dañ koo def fii wala parce que Lat boo bëggee dégg-dëgg waa Géejawaay je pèse bien mes mots demal Géejawaay nga laajte faj na fa ay nit yuy waaj de dee faj na leen jàppale na ay nit jàppale na ay néew doole kon kooku c'est l'homme social kon nag l'homme social boobu noonu yow boo xoolee bu ko waa géej waay euh, bañee votel mais dalay leen ay nit ñoo jékk ay nit ñoo wëlbatiku di yàq yor seeni i micro nekk ay soi-disant journaliste di yàq der loolu kese la de waaw waaw mais comme mun naa la comme maire maire géej waay bi ay ci actuellement nii moom moom moom la ah. moo nekk di yàq der. kan la Ahmed Aïdara Ahmed Aïdara bien sûr ñoom ñoo fi nekk di yàq der naa Aliou Sall suñu 400000 wala leneen ak leneen wala affaire yooyu noonu mais mais bu nekkul loolu mais géejuwaay xoolal actuellement ni nu mu euh, nu mel géejuwaay ci ville li ngay tudd ci ville yëpp géejuwaay ci la bokk BRT bi fa lay tàmbalee ka moo ko def xalaatu Aliou Sall kon nag nañ waxante dëgg loolu même bu nekkee loolu mais nee naa la géejuwaay APR fu mu ko jëlee ak fu mu ko yóbbu ku nekk boo demee di ko gis mais moom ba mu toogee la dafay def. loolu la fi def. kon da nga ne convoqué bi nga convoqué du yoon pourtant moom dafa yoroon dafa nekkoon na fi ministre nekkoon na fi euh, ministre wante it yoroon ay DG donc koo xamante ne si danga nga yor néew liggéey ci as ci bi donc jot nañ la woon ndax da dañ la dénkoon askanu Sénégal xaar Sénégal. mais loolu c'est normal comme li ngeen ko waxee nii mais dinañ ko woo mais woo bi ça veut dire que mooy dafa waroon tegu si ay base yu leer mooy ça veut dire que koo xam ne yow drainewul ay casserole yow koo xam ne nii amul dossier bu ko épinglé. koo xam ne nii amul benn affaire boo xam ne nii mën naa lay wax ni nee nañ dossier bii moom moo luubal lii wala moom moo luubal le mais kooku yow boo ko si woo da ko si war a woo lu mais nekkul euh, damaa neex rek ma convoqué ko nii di ko laajte ay affaire dossier yoo xam ne ni euh, moom laa lay aussi takku si xamu si dara nañ wax dëgg tamit waaw nit moom bu waxul boo waxul dëgg rek wax wax lu dul gannaaw dëgg quoi te boo bëggee dëgg-dëgg yéen seen diggante ak yàlla yéen journalistes yi gis ngeen benn rapport boo xam ne dafa épinglé la Diop mais amul amul mais amul comme que amul dossier bu ko épinglé mais mais quel est le problème kon loolu la hmm? non mais est-ce que gis ngeen rapport boo xam ne épinglé lat xam loolu amul waaw mais loolu rek la loolu loolu la waaw. jërë ngeen jëf merci.